ay bés rek des ci jullub korite gi ñi ngi xam ne ñooy jaaykatu tissu yi ak tailleur yi am ay jafe-jafe lool ci seen wàllu liggéey dara warul ko nag lu dul mbas mi di Covid 19 ñoom nee nañ gisuñu client te it couvre-feu bi arrangé wul dara. wax dëgg yàlla am na gàllankoor bu rëy rëy ndax fu may waxee ni sa client bi ma doon wax sax loolu la ma doon wax sànq léegi nu ngeen def ak liggéey guddi ma ne ko ah su wàcc jotee rek ñu wàcc ndax euh, waroon nañoo mën a sóoraale sóoraale doomu aadama yi ndax damay wax ne chaque jour feebar bi am na ñu ci baaxle. am na ñu ci tekkee am na ñu ci sonnee am na ñoo xamante ni am nañ ci xéwal ndax man damaa gëm ne du fekkee ñun ñëpp ñu ngi fii ci liggéey war nañoo xalaat ne ah téyerikat ñi nga xam ne ñu ngi toog seen place nañ toog seen place ñoom ñu liggéey gérer li ñuy gérer ñu bañ a génn par activité li ñu jënd nañ ko jënd ci mesures yi ñëpp mën a gérer liggéey. moom couvre-feu moom mooy loolu gàllank euh, am na gàllankoor bu bëri si liggéey bi parce que soo ko seetee événement léegi amatul bi bi mooy premier parce que ça. acteurs yi ak kii gars yi fii nii ñëw si événement bi guddi bi nii quoi ñu liggéey ko mais léegi moom mooy lool couvre feu couvre feu bi tax na événement amul dara amul léegi dañuy wàcc instant yi nii vingt et une heures rek wala eh, vingt rek ñun ñibbi kër gi. bi moo moo xaw gën a métti ci ñun parce que fi mu nekk nii da ngay obligé sa ñaw yu bëri da nga koy delloo parce que da ngay bañ dell nit ñi. presque nit ñi ñawlu wuñu sax seen doom yi ndaw ndawaan yi rek la ñuy bégal parce que fi mu nekk nii de naa kenn talu ko ñun téyeer yi saa yi problème bu rëy la ñu am xëy si bi fi ne nii da ngay naaj daanaka midi ngay yegg si boo jugee Pikine bala ngaa yegg si midi day jot booy wàcc da ngay obligé da ngay dox saa bu ñuy wàcc man mooy wàcc dama obligé ma ne ba Grand Yoff daf li ci des lépp dama koy dox ba Pikine nga xam ne yooyu yëpp ay jàngante yoo xam ne dafa metti lool lool fanaan bi rawatinaal ma am na sama mbokk mbokk téyeer yoo xam ne ni fi neen fanaan dañ leen cee jàpp dañ leen fekk ba seen biir atelier ci guddi gi ñu taal seen lam ñu fëgg leen ñu tijji ñu jël leen yóbbu leen. xam nga ne yooyu yëpp tamit ñoo waroon a sóoraale ci benn côté te xam ne tamit corona bi metti na dëgg na ñëpp ñu ngi ñu ñu ngi koy ñu ngi koy moytu. mais am na ay droit yoo xam ne ñu ni dañu ko waroon a may xam nga yokkal ñu suñu heure bi benn moment boo xam wala kii tëj sa atelier donte ñaari nit la nekk ci biir yaakaar naa foofu yaakaar naa feebar waru faa jotee dara ndax am nañ di nga takk masque. kon foofu waroon nañ ñu ñu bàyyi ñu ci xel tamit. parce que entre 9h du 9 ci suba ba 5 ci ngoon ngay mën a liggéey te moment boobu temps boobu dafa gàtt trop dafa gàtt trop bu ñu doon mën a may sax au moins ba minuit ñëpp mën a dellu seen kër yi ñi nga xamante ne ñun ñooy ñaw nekk ci façon liggéey bi parce que ci nga yaakaar pour fay sa location ci nga yaakaar pour euh, mën a dimbale sa njaboot. te affaire yi moom doxul noonu waaw da ngay obligé sa ñaw yu bëri da nga koy delloowaat parce que heure bi temps du la ko may presque doo liggéey dara sax mais bu ñu mayoon tuuti ñu mën a góor góorlu tuuti si heure bi dinañu gënal. damay wax chaque jour ndimbal li ndimbal li ndimbal du benn tailleur tailleur yëpp a ngi kaas international tailleur yëpp a ngi kaas amul benn tailleur boo xam ne boole nañ ko ci wàllu ndimbal amul te tailleur yi li ñu yor ci employé gisuma entreprise bu ko yor tailleur li ñu yor ci employé rek rek ñi nga xam ne ay tailleur Sénégal li ñu ci ay doomu personnel yoo xam ne rek ñoom ñoo leen yor rek kenn xamul nuñ toll at lee boram ndax amul benn cër boo xam ne jox nañ leen ko ci état bi amul benn cër boo xam ne jox nañ leen ko ci bi bi amul benn cër boo xam ne ñoom lijjanti nañ ko waaye war nañu mën lijjantee na leen benn place bu liggéey fanaan jotee ñi ngeen xam ne ngeen organiser seen i mbir ngeen bañ a amul lu dul événement ba événement jeexee li ci des ay demet lay nekk waaw ndax clients yi ba léegi na am na clients yoo xam ne ñëw nga leen ne carrément fii laa mën a yem fees na ndax mënoo liggéey guddi liggéey bëccëg mënu nekk ndax boo génn day ramas waaw